tur man maa ngi tudd euh, sëñ Muxtaar Diop Baye ñoo fii mooy place bu ñuy wax euh, euh, télécentre mu nawiru bu neyaan ñu tuddee ko télécentre sëñ Baara sama njaati gi nag mi ngi ci biir ñu koy wax sëñ Moussa Ñaan mais man employé la man maa jaay bagage yi moom nag comme bés bi ñu dëgmal nii bagage yi nga xam ne moom la ñuy baaxe taalibe mooy ci wàllu ay takkaayu murit comme maxtume yi am na ay façon yu bari am na yoo xam ne dañ koo sulli am yoo xam ne c'est en cuir am na beneen boo xam ne dafa ñuul bon bon dañoo dañ variation la daal am nañ tam ay njël ba ci njëlu xale yu tuuti am ay deux ans trois ans mooy xonq yee ngay gis waaw ak njël yi nga xam ne day am photo bu mag ci digg bi am ñaar yu tuuti yi ci côté yi ak asmaaw yi ñuy takk ci poignet ak ndombo aussi am nañu ay kurus am nañu xeetu kurus yu dijj am nañu ay kurusu marjaan am nañu ay kurus euh, variété variété la daal am na yu jar mille cinq cent mooy kurus yu xew yu dijj yi te gudd am na yu yam yi jar mille franc ba ci jar téeméer mooy comme yu yu jigéen yi am na yu jigéen am na yu góor. bu cuir bii nga jàkkaar lool bu ñuul bii euh, douze mille la ñuy déparé mais dix mille la yem xam nga kooku xaw naa cher mais maxtume bu bu meilleure qualité la waa Masaalikal sax dañu Masaalik gi mbul kol naan bu Dakar dinañ ñëw fii di ko jënd buñ ko jëndee ñu jaay leen ko huit mille ñu yóbbu ko Dakar jaayee ko douze mille ba quinze mille am na sax ñu koy jaayee foofu vingt mille waaw parce que qualité la daal waa njëg bi yamul waa mais Dakar moom boo ko fa demee moom boo ku fekkee Masalikum moom di nga ko jëndee quinze mille ci màggal Tuuba période bi nga xam ne nag maanaam ñëpp dañoo ñëw fi ñu toll nii daanaka léegi ñun dinañ ko mën a jaayee euh, dix mille waaw ndax euh, duñ la wax lu cher noonu dinañ la ne douze mille la ñuy déparé yow mais dix mille nag mooy dernier prix. waa mi dox euh, tuuti tuuti ndax. nous sommes à trois jours du màggal di samedi dimanche tey la ajjuma boolewuma ko ci samedi dimanche xam nga moo ci des altine le 4 moom mooy màggal màggal gi clients yi daal ñëwaguñu bu baax mais nak Touba commencé naa fees gis nga mu mel nii yaa sa bët moo la may dëkk bi nous sommes à trois jours du màggal mais dëkk bi fees na del waaw mais nag dox muy jouru màggal gi jouru màggal gi moom jaay ma jaay ma ji day mel da ngay da jaay ba ligne gi daanaka presque ay par benn benn benn ay ñaar ñaar ñoo fi des loolu la yàlla na sa borom euh, yokk seen taxawaay bi seen liggéey bi télévision Mader TV ñoo ngi ñaan ci barkeb màggal Touba gi ci barkeb Cheikh Mountakha Bassirou ak sëñ am di Modou Mbenda Baye Serigne Baye Fall suñu sëriñ ñoo ngi ñaan sa borom defal leen ay jéego yu kawe ba dewen boo leen fi ñëwee indi fi ay bagage yu gën a xarala yu yu yu mucc ay ànd ak jamono waaw gaare fii seen Pajero wàcce bagage yi waaw loolu daal ñoo ngi koy ñaan ci barkeb màggal bi sa borom defal leen ko ni te di leen ñaanal màggalu jàmm gu ànd ak tawfeex ak xéewal